خير المحبوب عليهم ولا دالين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بحق ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول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 2 rabiul awal 1437 fa tabarakallah loolu la ñu ñaanee jalla dugg si émission bi si bismillahi rahmaani ñaan yàlla ka xaadatihi yàlla kàttanal nu ba mu jaar fi émission Duha daan jaar ka xaadatihi dañuy tàmbalee nuyoo ndax sooy dugg ci kër dangay jaar ca bunt ba kon dañuy nuyu kilifa kër gi di Almadina FM 100 point 8 fii si Dakar 96 point 8 sa Kaolack di nuyu bu baax kilifa ki di Alxaji suur ñas di koy siyaare si weeru gàmm bi nu nekk noonu la ñu nuyoo tey siyaare it fa tabarakallah kilifay rajo bi yëpp fa tabarakallah Omar Mbacke Seck Ibrahima Etia di nuyu bu baax tey siyaara fa tabarakallah Iba Mar nga xam ne dimanche bu nekk moom la ñuy jàkkaarool ci seen émission Wadduha ci Almadina di nuyu bu baax tey siyaara ka xaadatihi nu ñaan fépp foo xam ne sunu kàddu àgg na fa ndax dundu ñaar la moy dundu adina ak barsak dafa la nu ngi ñaan fepp fu sunu kaddu ag nu jang lanu man si suratul ikhlas di qul huwallahu ahad wala lanu man si ay basmala te tey seen émission wadduha fa la nu yene se barkelu len si bismillahir rahmanir rahim bismillaahi rahmaani rahim mu jege nu lool wante it muy xaw a mel ni daf nuy sori yenn yi xaw a mel ni daf nuy sori ji mooy macha allah amul lu nit di gëstu te loolu gën a màgg te loolu ëpp leer te loolu gaaw ëpp gaawul faj aajo si bismillaahi rahmaani rahim. xamna naa len nat ci si ay njariñam nyamdan fas barkelu tay ci si émission Wadduha kon nuy ñaan fépp fu sunu kaddu ag ko ci man def témèr ak fukk ak ñent bismillahir rahmanir rahim bu pare mu tek si fukki khul wallahu ahad ak benn yal ko sallallahu alayhi wa sallama ak njabotam ak sahabam ak khulafam ak euh, fa tabaarakallaa képp kuy kilifa ak képp kuy bokk ci xeetu Seydina Muhammad te nekk barsak nu defal la ko xaddiya defal la ko xaddiya yàlla yokk yërmande ci ñoom yàlla beesal yërmande si ñoom yàlla beesal njëggal sa ñoom wante yàlla leeral seen gannaaw te loolu lu am solo lu loolu jullit di war di def la ndax mandat la boo xam ne lépp loo yónnee rek. na nga la fa jencal sa pourcentage ba yàlla na yeex lool saa yoo fa demee fa tabaraka laa nga mën ko fay fekk kon nan di fàttaliku lu bëree bëri bëri ñi nga xamee ne bii ñoom la yàlla dogal nu nekk barsàq gannaaw loolu fa tabaraka laa nu ngi nuyu tey siyaara kilifay diine yi kaxaadate yi ni nu koy defe di ñaan yàlla yokk guddal seen fan lool fa yàlla wéral seeni cër ndax macha allah nanu koy waxee tiitaru senegaal oru Sénégal jamaay senegaal kilifa sunuy kilifa la sunuy kilifay diine tax na am na lu bëree bari lu nuy dégg ci jamono lu bëree bari luy xew ci àddina te yàllaa ngi ci dimbali sunu réew loolu it ëpp na xeeb soo seetee Sénégal boo ko seetee yi réew yu bari bu dee yaatuwaay amaana noo ko ko ëpp fuuf. wante su dee la ñu tuddee koom réew yu bëree bëri amaana mën nañ koo ëpp li ñuy wax matière première waaye foto fa laa réew la boo xam ne réew bu am dal la réew bu am sutura réew bu am solidarité te loolu ñi ko suuxat mooy sunuy kilifa yi fa laa kon nu ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy seeni njaboot yàlla yokk dëgëral seen taxawaay yàlla yokk guddal seen fan. xam naa si kattanu yàlla sunu yàlla dimbande dimanche bii di ñëw nga xam ne dina gën a jege gàmm danañ waxtaan si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nu yéene ko ànd ak sunu yàlla dimbale al imam Muhammad Ñang fa tabaaraka laa jokkoonoon si ak moom ba nu jox nu si ndigal bu ko defee nu waxtaan si guddi gu mag googu nga xamee ne bii fa tabaaraka mooy dégmal te lii firndeel ne am kilifa lu am solo la. su gàmmu ñëwee da ngay foog ne sallallahu alayhi wa sallam Sénégal la Sénégal cosaanam koo gis rekk ma ngay manifesté woo na ko ko yàlla man loo ndax xam na ne tey am na lu xew dat bi si la ngeen jimindeef ganee àddina ba fu waay nekk rek fa tabaarakallaa ma ngay def loo xam ne ne bii daf koy tuddee gàmmu loolu yi nu si sant yàlla bu baax di si sant suñuy kilifa di lay ñaanalit fa tabarakallah di ndokkeel bu baax tamit sunu kilifa yi si burdu fukki fan yi burdu yi nga xame ne bii moom la nekk te mooy fa tabarakallah di nettali siira Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp doon yiw boo xam ne fa tabarakallah am kilifa yu baax rek rekk rek moo ko waral kon nu ngi nuyu bu baax tey siyaara tey ñaanal seex Ahmed Tidiane si al ak njabootam. waaye Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak njabootam fa tabarakallah ak fépp foo xam ne kilifa ma nga fa nu ngi leen nuyu di leen siyaara di leen dokkeel si gàmm gi fa nu ngi nuyu bu baax sunu rakk di Cheikh Ahmed Tidiane eh, nga xam ne moo nuyu faral di wettali si Wadduha te tey yàlla def maam nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal Cheikh Ahmed Tidiane Gadiaga di nuyu daara ji ñëpp moo xam la moo xam bàjjan moo xam Modou moo xam Omar Diallo fa ak képp ku mu nekk si daara ja rek fa tabaraka nu ngi lay nuyu di lay siyaara di siyaara bu baax sunu mag sunu wëllëre eh, fa tabaraka la di alxaaji xaadim rasul Guèye fa nu ngi koy siyaara bu baax di koy ndokkeel di koy ñaanal yàlla di koy ndokkeel tamit si weer bu mag bi nu nekk noonu la ni siyaara tamit sunu wëllëre yi moo xam Wadduha bu Rufisque la te sunu jigéen Adja arab Ndiaye nekk fa nu ngi koy nuyu di koy siyaara di koy ñaanal di koy ndokkeel moom tamit fa noonu la ni nuyoo tey siyaara tamit Wadduha point 1 te sunuy waajur nekk fa alxaji Alfuseyni Sagna ak ajaa Fatou njaay ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal. di leen ndokkeel lu bari fa tabarakalaa Wadduha bu Mbuur Sali Carrefour fa tabarakalaa ñoom nu ngi nuyu bu baax di di ñaanal sunu jigéen nekk fa fa tabarakalaa madame Ñang ak càmmiñam sëñ Yaxya Ka nu ngi di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di nuyu tamit ñi dëkkee Mbuur ñëpp di leen siyaara di leen ñaanal fa di ñaanal daaray nu ngi siyaar bu baax tamit wóllëre yi soppe yi xarit yi fépp fu waay nekk rek tey béggee émission Wadduha nu ngi lay béggee nu ngi lay sant nu ngi lay ñaanal ndeysaan saa yu dimanche jotee ndeysaan da ngay jot appel yu bëri émission lu tax émission amatul lu tax émission amatul mais wax na ñoom ñëpp fa tabarakala sañ ñaan nangu na ndax si kàttanu yàlla ak man-manam yàlla dogal na émission Wadduha ya ngeen ni koy am si Almadina FM dimas bu nek inshallah si ñi nga xamne ne la yalla dogal nu daje ak mom dimas bu nek da ngeen mëna am seen émission Wadduha ci al madina FM ci 100.8 wante di si 98 point sa Kaolack fa tabarakallah nu ngi nuyu bu baax sunu jarbat nga xamne mom la doon jakarul dimas bu nek di alhaji abdullah Mbeng seigne Abdoulahi se tonton se papa ne papa rek lamay woy woye mu ngi lay siyaara di lay ñaanal ay xewal nu ngi nuy bu baax tay siyaare e, serigne Kalidou gay bu RMD mom lay jox nuyo bi mu joxal mako sama reference di sama soppe di Cheikh Ahmed Tidiane nyang bu RMD fa tabarakala nu ngi ni leni nuyu di len siyaara di lay ñaanal sunu mak Oustaz Mor bu RMD bu RFM Momin mangi koy nuyu bu baax di koy siyaara Cheikh Ahmed Tidiane bi tey bu RDV maa ngi koy nuyu bu baax barak tabarakalaa di koy siyaara di koy ñaanal niki noonu soppee soppe Thierno Jibi Saw bu XFM maa ngi koy nuyu Serigne Moustapha Diouf fa tabarakalaa maa ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal di nuyu bu baax sëñ Abibou Abibou mbay premier auditeur maa ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal di lay wax na it mm, sopp naa gisee bi allah <laughs> di nuyu bu baax soxna su baax macha allah bu ma doon woo léegi te doon kuy daan wetti li ko émission Wadduha doon may laaj ndax émission waddoxa mi ngi am e, maa ngi koy nuyu di koy siyaara ak e, doomam muy soxna Umu Faal ak doomam soxna Faatu Mbooj Wadd maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di ñaan yàlla may leen barke Duha. di leen wax ne incha allah si képp koo xam ne bii tey la dajanteeg émission bi dimanche bu nekk si da ngeen ko mën a am si 100.8 di Almadina FM Serigne kër Lay maa ngi lay nuyu bu baax di lay siyaara soxna Banel Bare di sunu jigéen moom it maa ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara soxna maam jaara bu Kër Massar fa tabaarakala soxna Fatou Silla bu Wakaam di siyaara bu baax yaayu Wadduha yaayu Wadduha soxna sëy Eh, fa tabarakallah maa ngi lay nuyu bu baax di lay siyaara di lay ñaanal di ñaanal sa njaboot gépp fa tabarakallah loolu moo nekkoon nuyo bi xam na macha allah am na mbokk yu may wax na nuyoo nuyo bi day xaw di jël temps waaye macha allah <laughs> eh, day baax lool almaru mahaman ahaba da nekku nekk ka lay bégee rek moom ngay tiitaroo mooy tax fa tabarakallah saa yu nu fi toogee te noo xam ne nu ngi nuy bégee nu ngi nuy ñaanal nu ngi nuy wettalikoo nu wan leen tey nu wax wan leen sunu kéem kàttan si ne loolu ñun yëg nañ ko kon fépp fu soppe nekk fu wëllëre fu xarit nekk nu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal Iba Mar nga am loonu yëkkatul tuuti rek nu ñëw ak yéen seen émission Wadduha نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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

sen émission ha nanu koy faral di defee sa yu nu fi toogee inshallah allah yéene nan nu ak yéen si naafila ndax buntu xibaadaat yépp bi si gën mooy julli fa tabarakallah tegee sa jàng alxuraan tegee sa takbir ak tasbih ak tahlil te loolu mooy di tudd yàlla fa tabarakallah émission duha famiroote fépp mooy la yàlla di gërëm mooy tax saa yu nu toogee si kattanu borom bi loolu leen yéene di koy ubbee moo xam naa fi la yu nu leen di jox la wala ay askaar yu leen di dimbale wala it fa tabarakallah loo xam ni tegtal yoo xam ne sunu leen ko waxee du génn alxuraanul karim te mën nga see am fajog aajow tey nu fas yéene indi salaatu tasbih te muy lu am solo muy loo xam ne dañ ne lu jullit sagan su ko mënula def bët bu set benn yoon ak càgganteem àgg si mënu ko def semaine bu nekk benn yoon càgganteem àgg mënu ko def si weer bu nekk benn yoon ak dem ba mënu ko def at bu ne benn yoon xanaa lu mu sàggan sàggan giiru dundam dana ko def benn yoon te fa tabaarakalaa muy julli goo ne day day effacer day effacer lépp loo xam ne rëcc-rëcc la su doon ne machine la wala euh, mémoire la nu ne day supprimer données yëpp fa tabarakala noonu lay raxase jullit bi si lépp lépp lépp lépp loo xam ne bii bàkkaar la kon fa tabarakala tey rëcc-rëcc du man di ñàkk mooy tax day baax lool jullit di fàttaliku borom bi tey nu fas yéeneen euh, indil salaatu tasbih ñaari rakk lay doon rak bu nek gannaaw fatiha nga tek sis ben sar so pare subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mom ngay def fukki yon ak juróom si gannaaw fatiha ak sar nax tasbih yi lepp soko bolé su pare day nek 300 rak bu nek war nga am war nga am juróom ben fuk juróom ñaar fuk ak si yii ma wax subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar na koy séddale nag mooy boo defee fatiha ak saar ba pare danga koy def fukki yoon ak juróom soo ko defee fukki yoon ak juróom nga rukkon def subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar nga def ko fukki yoon nga koy def booba boo rukkon si gis si rukkon bi nga def ko fukki yoon nga sujjóot boo sujjóotoo nga def ko fukki yoon siggi si sujjóot bi def ko fukki yoon fa tabaarakala door a jóg indi sa ñaareelu rakka soo jàngee fatiha ba ak saar ba nga say teg nga def ko fukki yoon ak juróom subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa tabarakalaa nga rukon yoon si gisi def ko fukki yoon sujjóot def ko fukki yoon si gisi sujjóot def ko fukki yoon fa tabarakalaa soo sëlmalee soo jóge soo taayaa nga defaat yeneen eh, jóg defaat yeneen ñaari rakka soo paree yaa ngi am soixante-quinze multiplié par 4 day lay jox 300 fa tabarakalaa moom ngay def si ay si bi moom ngay def si taxliil taf uh, muy julli goo xam ne fa tabarakalaa képp koo xamee ne bii yàlla kàttanal na la ngay faral di koy def ngir lépp lépp lépp lépp loo xam ne rëcc rëcc la yàlla effacé la ko yàlla effacé la ko it waaye yàlla gën lay teg si siraatal mustaqim gën lay teg si siraatal mustaqim it gën la may toroxlu gën la may àllu ak waxdaaniya gën la may taqwa gën la soreeleeg lépp loo xam ne bii diine daf koy sib te foog naa loolu fa tabarakallaa lu am solo la kon loolu lan yéene woon a ubbee tey nuy ñaan yàlla barkel képp koo xamee ne bii daje nga wala yéene nga koy def nuy ñaan yàlla defal la si barke te fa tabarak la eh, njortu rafet na lool si ne ku koy def it yàlla dana la ko nangul ndax lépp lépp lépp lépp day dellu si màggal yàlla day màgg dellu si bàkk yàlla te nan ko doon waxee ne borom bi yëg rek la bëgg mooy tax saa yu koy jaam day ñaan rek day bég day day xam ne jaam jaama ngi nii boo xam ne jaam bu ko sopp la jaama ngi nii boo xam ne jaam gu nangu eh, ak eh, wax daan yam la a ngi nii boo xam ne bii biir na ko ne su ñaanee am na ku koy dégg te mën na koy may la ñaan mooy tax ñaan ñaan man nu mën koy tuddee farata ndax santaane borom bi la borom bee ne adduxuuni mu melni ki borom bi lu mu wax rek lu mu santaane rek day nek farata lan la sa tek tamit asajib lakum kon tal la nes fa tabarak la ñaan luy war la julli dikoy def ta muy ñaar lo xamene bi mbekte la bo bëgg jot wala yef safan bo xamene bi da nga bëgg yalla soril lako kon bobu julli la ne lon tay muy salatu tasbih te muy ñeenti rak yooyu def bu si nekk ak eh, askar yang se def tabarakallah si eh, al subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fukki yoon ak juróom nga koy def si eh, taxawaay bu njëkk bi gannaaw fatiha ak sar yeneen yi booru ko xee fukki yoon boo siggee fukki yoon boo si jodee fukki yoon boo siggee fukki yoon fa tabarakallah noonu nga koy defee ba julli gi di mat tey seen émission Wadduha nin ko waxe won nu fas yéene barkelu lenn si bisimilahi rahmaani rahim nu ma ko waxee woon bisimilahi rahmaani rahim su ne la kooma ngi si danay neex a gëm lool lool lool lool ndax lim ba ma ngay tolloog 789 di safadu nu ne 789 mooy lan mooy allahu wahabu rasaaxu karimu latifu loolu mooy bismillahi rahmaani rahim te defe naa waxaab rasaax karim latif tur yooyu macha allah kuy ul xéewal rek fa tabarakallah ba nga am barke tur yooyu waaye bismillahi rahmaani rahim tamit barkeel gay tax alxuraanul karim 114 suuraat yi saar bu nekk nu koy ubbeeg bismillaahi rahmaani rahim xañ na dina am ku ne am na saar boo xam ne amu ko waaye saar boobu amu ko waaye 114 fois la basmala ñëw si alxuraanul karim ndax soo demee si sóoratu naxli suma jumut innahu min suleymaan wa annahu bismillaahi rahmaani rahim ala tahlu alayya wahtuni muslimun da nga fa fekk bismillahir rahmanir rahim kon mu melni ki basmala bi amul si baraa baraatu minillah da nga ko fekk si innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim muy fukki sar ak ñent ñu sar qur'an waye fukki yon ak ñent la basmala ñëw si alxuraanul karim tektal la si ne kon li ñuy wax secret alxuraan yépp tënk nañ ko si faatiha boroom juróom-ñaari ayat yi waaye ñu ne tënk nañ ko ci basmala waaye ñu ne tënk nañ ko ci baaga kon ñu ne ci baaga bi bi ba ihaa kaana ma ma yëkkunu kon nu ne tegtal la ci ne fatabarakala secret basmala yépp mën nañ koo tënk si baaga fa tabarakala mu mel ni ki kay yore big di signé décret ma ngay commencé si noxta kay bu doré pikin ma ngay commencé si noxta mu mel ni ki lepp lu yëngatu rek si point lay tambali loolu lepp di gën a dëggal doole doole bismillahi rahmaani rahim ni ma ko waxee woon léegi ne mu mel ni ki lu nu jege lool tam doon lu nu sori lool ndax bismillahi rahmaani rahim ni ma ko waxee lim ba doon 787 xaraf ya doon fukk ak juróom-ñaar lépp lu nit di def te commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim du sa wéttali ak saytaane kon nu war koy teel a jàngal njaboot gi dem na ba si téléphone sax ñaare foog naa ni ñu yokkal ñu bëri dinañ di seetlu sunu décroché bismillah la ni wax kay woote ne asalaamaaleykum nga fay ko lu ngeen di wax ngay door a wax jamono yële passé wala at bee passé ñu ngi am rumeur yu ñu doon wax am na numéro téléphone yoo xam ne ku leen décroché rek da nga fi bàyyi ko ba ma defoon si benn yóbbal si émission Duha si ne lu nit di tàmbalee te commencé ko bismillaahi rahmaani rahim su fekkee loola dafa rax lenn si seytaane moom na ko biir ne macha allah mën na loola kon nan di tàmmal njaboot gi si bismillah suy sooy lekk bismillah dafay am solo bismillah sooy naan bismillah dem na ba si boo duggee boo tëjee sa nekk liggéey ba wàcc boo ubbee nanga tudd yàlla bis bismillah assalaamu aleyna wa alaa saalihin yooyu day am solo bu ko defee lépp lu fa nekkoon si naka sudul noona lolo day daw sooy lekk bismillah siqatan billah wa tawakkulan alayhi baax na lool fa tabarakalaa nu njaboot gi di koy mokkal lépp loo defee loolu lépp loo lekk doonte leneen a nga sa nag naka su noona su doon loola am na pouvoir mën na ne rey nga pouvoir ba kon loolu du la ndaw te lekk nanu koy waxee biir pax la bu xóot pax la boo xam ne bii tee na ko gën a xóot ndax biir lu sa dugg rek fa tabarakalaa génn ga mën naa jafeñ mooy tax day am solo booy lekk nga léemu sooy naan nga léemu sooy tëdd nga léemu sooy dugg sa néeg nga léemu sooy dugg si wana nga léemu sooy génnee nga sant yàlla ñaan su ko defee macha allah sooy dugg si oto surtout bépp mbir booy dugg rek nga mësulu si seytaane tudd yàlla su ko defee lépp lépp lépp lu fa nekkoon si sayaatin eh, fa tabarak la loola eh, du nu am si yow dam nga sen pouvoir du nu meuna access yow te kat yi nu nu ngi fi nu ngi fi du jeex tamit du masti jeex lu jamono yi gën di yàgg rek nuy gën di yokk luy jamono yi gën di yàgg it seen seen kàccoor ak seen def safaan gën di yokk ngànnaay ba nu am nag ñun jullit ñun ñuy woote wu jullit mooy alquranul karim dafa tabarakallah turu yàlla moom xajul si lenn loo xam ne bii safaan la lenn lenn lenn lenn nag laa wax na lenn yi mënu koo supporter loo xam ne safaan la kon noonu bu nu bëggee jàmmi àddina ak àllaxira nan di tudd yàlla lu bëree bëri bëri te lii ma wax muy bismillaahi rahmaani rahim nan di fexe xele yi di koy jànge wax wala suñuy jàng wax commencé koy mokkal nu leen di jàngal xele soo toogee rekk mu bëgg dugal loxoom ne ko. tuddal yàlla waxal bisimilahi rahmaani rahim yooyu day am solo dan koy xaw de xeeb tamuy am solo ndax mooy loo day tax loolu may leen dund gu teey ndax si li nit di amee dund gu teey mooy di mucc ni ma koy waxee ne àddina bi léegi su doon ne course la ku mucc rek da nga àgg sun toogoon fi ne ku njëkk almadi rek da nga am nangam fa tabarakallah mën na ne loola course lay doon waaye ku nu fakkastal wala nu lala la ndëgg sarax yow sa course foofa la yem la lay muccal sa loola nag bokk na si lii mooy wax léegi xam na di leen jàngali nuy saxoo laab lu amam solo lu ama am solo di génn sa kër génnaaleeg laab léemu surtout loolu nu may ubbi lu bari bismillahi la si laa yaduru maa ismihi say un fil ardi wala fil samai wa huwa samiun halim li fa tabarakallah ibmar li kep ku ku fu won ngir mokal ko foog naa du upp semaine te man na la defar sa ngiru dundu kon way jur yi jéem len koy jéem len a si njabot gi suñuy lemu ngir nuy am muccu adina ngir xewal di len di yombit it ku muccu rek na fa da nga ànd ak ndimbalu yàlla ba la nga bëgg wala fa nga bëgg àgg da nga fa àgg bismillahi kon mu ngi noonu lépp lu jaam lépp lu doomu aadamay def na koy ubbeeg bismillahi sirrola rahim nu si baaxee lenn si loo xam ne bii la li wax secret te mooy képp koo xam ne tukki nga bind bismillah bàyyi sa kër bind rahmaani rahim yóbbaale si kàttanu yàlla ak man-manam rahmaani rahim ji dana fekk si waat bisimilah rahmaani rahim. nuut koy baaxee ñëpp képp ku sa njaboot di tukki rek bind ko si benn fooy bisimilah def benn espace def rahmaani rahim nga dagg fooy bi mu jàpp mu nga xaw a dagg fooy bi ngeen tàggale ko moom mu yóbbu rahmaani rahim nga téye ko bisimilah rahmaani rahim bi si kàttanu yàlla ak fu mu mën a dem. si kattanu borom bi dana dellu si waat ak alhamdulilahi rabbil alamin bismillahi rahmaani rahim tamit képp ku ko bind yaatal miim ya sa nekk ñetti miim yi ak haabi dugal sa biir qul huwallahu ahad boo ko ubbee da ngay dugal sa biir qul huwallahu ahad soo paree nga def ko saafara di koy nàndal sa njaboot yàlla dana leen may xol bu leer xel mu set fa tabarak boo dee seet léegi xale yu bëri absent absenté yomb na leen jaxasoo yomb na leen wala yi doon saaru xelel boo xam ne nu baal ma si kàddu li ñuy tuddee yambar yooyu yëpp fa tabarak la buñ dee nand lu si alxuraan yàlla dana da leen di dimbale si dana leen si dimbale dana leen si musal ndax xale yu mel noonu ñaari lu si bëree bëri jinne leen di dugg rek ba jël seeni cër jël seen xel ba nga xamee ne bii dañuy doon loo xam ne su fekkoon ne nite cent pour cent point la nit di am pour nekk nit man nga ne ñoom duna am quarante wala du am cinquante kon tegtal la si ne am na leneen lu leen moom la leen di dàqal loola nag lay tax nu moom seen bopp cent pour cent dana si bokk di nandal nuy nandal njaboot gi si alxuraanul karim te bokk na si bismillahi rahmaani rahim bokk na si it fa tabarakallah eh, képp ko am way dawlu te mooy ñi nga comme ni ma ko biyee woon ñi nekk barsak moo xam jur la fa tabarak moo xam jaboot la ak ku mu mën a doon rek nga defal ko douze mille bismillahi rahmaani rahim te mooy fukki junni ak ñaar nga xam ne dan ne su fekkoon ne aljana am na ticket dan ne soo ko defee yàlla may jox na la ticket aljana te fa tabarakallah nu koy tuddee fiddaawu muy lu am solo nga xam ne nit kuy dund war nga koy mën a defal sa bopp balan la koy defal ndax per ya mën a mat ndax yenn saa yi da nga di dégg 114 basmala la la ni wax te ñu si bëree bëri macha allah mën nañ ko def si cers te defe naa ne eh, kurus warul la mën a eh, gaa gën a gaaw seconde kon day bax lol jambi di koy defal bopam yene si mucc waye yene si yermande borom bi jalla jalaluhu bismillahir rahmanir rahim muy am solo lol tamit ki nga xamene bi bind nako 1111 bind ko 1111 def ko si wayam la sey gën nak moy mu def ko 5 fois 1111 bu pare def fukki li ila fi quraysin su paree mu ngi am cinq mille cinq cent cinquante cinq si basmala waaye mu ngi am cinquante li ila fi Quraysin su ko defee ñeenti koñi dëkkuwaay bi yëpp ak si digg bi mu def ko fa fa tabarakalaa ko na ma ko daan waxee si ne dëkkuwaay yi nan koy defar dëkkuwaay ba yàlla dana fa tuur wërsëg ndax macha allah wër dana fa yomb dal dana fa yomb juboo dana fa yomb te fa tabaarakallaa jàngoro yu sew yu sew yu bëri yoo xamee ne bi seyaatin yi danañ koy faral di def kër googe yi dana mucc si loolu kon defe naa ne loolu du lu ndaw te mooy 1111 nga koy def 5 fois 1111 boo def rek nga def 10 li ila fi quraysin bokk na si baax na lool képp koo xam ne yaa ngi tëdd nga def ko ñaar 21 fois ñaar fukki yoon ak benn ñaan la ngay ñaan day am solo lool fa tabarakallah eh, léemaay nin ko daan waxe day am solo nax li ni wax nelaw rakku dee la wala de gu ndaw la kon kuy tedd rek war ngay tëddaaleeg laab war ngay léemu it nu koy jangal njabot gi bu baax baax day am solo ibamar marbo sete legi njabot yi macha allah eh, ñu ci bëri jaxaso danay bëri ci ñom ak tedd di gis lu nek yoy yépp bari na lu koy waral na koy waxee dëkk ak sayaatin rek te bokk na la say gën a dimbale doomu aadama mooy di saxoo toujours laab rawatina buy tëdd kuy tëdd tëdd tëddaaleeg laab lu ama am solo la def sa léemaay lu ama ama am solo la bokk na it si njariñu bas bismillahi rahmaani rahim boo ko bindee cent vingt fois cent mooy lan danaan mooy famm nu ne famm mooy leen mooy gémmiñ si gémmiñ yi sala làmmiñ nag nu mën a tegtal ne leen jaam bi wax na nu yàlla musal si bët ak làmmiñ tegtal la si ne kon làmmiñ am nag tooke ku bëgg nag di mucc si tookey làmmiñ te mooy li ñuy wax cat fa tabarakala bari na si ñoo xam ne lu nu leen tuddal rek dana am lu nu yëg imaasu dee oto ba la dana kërwe wala fa tabarakallaal dana am tuuti ayib wala dana xaw a fakkasalu wala wala wala wala am na si ñoo xam ne macha allah seen vidéo yi mel noo xamee ne bii loola day faral di leen di dal am si ñoo xamee ne bii jaam ay mbindeef waaye macha seen làmmiñ am na tooke mooy tax toujours ni ma benn mbokk wooye woon na ma ndax yaay sëriñ bi wax tabarakallaa ma ne ko waa fa tabaarakalaay ba tàmm nan ko ndax macha day kàddu goo xam ne tabaarakalaay macha allah loo ko booree rek yàlla dana rocci yàlla du sa def cat waaw mais tudd yenn yi kenn tudd ko te tegoo sa macha allah wala tegoo sa tabaarakalaay amaana macha allah su mbir amee nu ne tuddoon nga ko. moy tax loolu it di koy tàmm du lu du lu du lu ban du lu bon fa tabarakallah mooy bismillahi rahim nga def ko li mu famm te mooy def ko bind ko téeméer ak ñaar fukki yoon li ma benn soxna doon wax ne ma wadduha moom borom alewo yi nga ko jagleel xam naa tey dana xaw a bég macha allah ndax basmala <laughs> xaw nay jàppande si ñu bëree bëri soo ko bindee téeméer ak ñaar fukk man nga def bii nga sangoo bindaat ko it naan ko bindaat koy def ko téere wala takk sa sa yaram walla takk sa dëkkuwaay si kàttanu borom bi yàlla dana la dana la fanqal catu làmmiñ foog naa loolu lu am solo la mu bokk yi si lenn si njariñu bisimillahi rahmaani rahim ki nga xame ne bii bëgg na njabootam tege si siraatal mustaqima defe naa ne lu am am solo la te defe naa ñëpp bëgg loolu na bind suratul taha ba mu jeex ak suratul mu'minun ba mu jeex su pare mu bind bismillah bi mu bind bismillahir rahmanir rahim daf koy bind temer ak fuk ak ben si bismillahir rahmanir rahim mu def ko safara def ko ndox bu beuri barkel si sam-sam di koy nandal e eh, ibamar lolou fa tabaarakalaa kep ku beug sa njabot di jup te muy bari lool lu ne insister si njaboot ndax xéewale eh, àddina yi yépp njaboot ju baax daf si gan njaboot ju baax defe naa njaboot ba jagut sax xéewal la ndax ka am doomam moo xam maara day taali doom ja day gens wala day tox leneen la wala day naan sàngara ku amoon doom jooju sax bu nit ñi si moom ne ko dama la bëgg a jox 1 milliard nga jaay ma day bañ rawatina kon ka nga xamee ne bii tege na si siraatal mustaqima kon loola amul prix lu tax amul prix nag mooy tax kon nan di pasteef nan di gëna góor góorgóorlu bu baax si njaboot gi ba ku si nekk rek macha allah sa njaboot dangay nekk moom mu nekk yow su ko defee li ne waxee xayun bi xay am na xayun bi mayti maytun bi mayti maytun bi xay kii dund dund am na. waaye ki dund ba pare dee am na ki dee dee am na ki dee ba pare dund am na yooyu ay tegtal la si ne nit mën na ne mën na ne mu ngi dund fekk day nooyi rek waaye dundul mhm. nit tamit fa tabarak laa dana fi bàyyi ko waaye di dund tegtal la euh, firnde yaa ngi fi macha bari na si ñoo xam ne seeni seeni bàmmeel waxuma la dépense su kër waaye mën na dépense su réew kon ñooñu fa tabarkala danoo làq waaye nu ngi dund nit tamit dana dee ba pare dee maytun bi mayti mooy ki nga xamee ne bi macha allah dundam dara jegu sa waaye maara day taale su dajeeg boromam maara day taale waa xiyaasu billah yàlla nu si yàlla musal kon nan gën a pasteefu si njaboot gi ngir nu am sahadatu daaray ni te mooy dund gu teey fii si àddina waaye ëllëg bar sàq la ku nekk ñaan mooy jiiti su njaboot jiitu sa njaboot yàlla na yeex lool nag mag ñëpp gunge seeni njaboot barak la waaye su loolu amee la nga góor góorlu woon si xale bi ba muy tudd yàlla toujours sa mandat daf la fay fekk dala fay fekk ndax dana lay fàttaliku dana lay fàttaliku saa yu jullee su waxtu ba nga làqatoo del seyit mu gën ko yaatal te loolu lépp lépp lépp yiw la loolu it yaakaar la yaakaar jooju it yàlla du koy delloo ndax yàlla day lay wax ne lii yaa ko liggéeyoon àddina ndax maa la dénkoon njaboot ba ma la ko dénkee passé foofu ba nga sa defoon résultat bi mu ngi nii te fa tabaarakalaam ki war a gëm transfert d'argent yi am war a gëm ne fa tabaarakalaam borom bee ko dàq ñépp te bokk na si xéewal yi sallallahu alayhi wa doon wax xéewal yam mu doon wax ne du dog du dakk mooy bàyyi fi jaboot bu baax bàyyi doom ju baax ju lay ñaanal kon loolu képp kuy waajur rek nu ngi lay dénk di koy gannaaw ba nu si jiitale sunu bopp ñuy gën di pasteefu si xeleel yi ndax jamono nde sama waajur ma sonn ma ko wax ndeysaan yal na yàlla yokk yërmande si moom ne ñun de sunu jamono doy na waar waaye yéen a ma jaaxal dafa tabaarakallaa kon rawatina ñun ñun ñun ni nekk nekk ci jamono bi sunuy doom ak sunuy sët nan lay war di mel ndax macha allah moyen yi communication yi day gën di yomb day gën di yomb di gën di discret tamit mooy tax xeleel boo ci jiituwul rek jamono dina jiitu ci moom te bu jamono jiitew ci moom macha allah àddinaam lépp mën nay doon leneen lu dul lu yàlla gërëm. kon fa tabarakalaa nan di jitu si njabot gi euh nama koy waxe rek ndeysaan yaay yu bëri wala baay yu bëri dani dani xaw di salik wala dani xaw di am lu len di nakari si nuy am ak ñom jotay si ne sama dom munuma am si mom ñaar dërëm man na ko ñaan ñaar téeméer damay wax ba sonu bala ma say jot te man na genn maye ay junni sa te wallahi lu nit eh, di ker la sa war a ut te loolu fa tabarakallah loolu du lu war du lu war ndax macha allah doom moomeel la si ay wayjur kon te moomeel it dañ ko war a fonk bu baax a baax ni nit di sécurité eh, alalam mu fexee ba njabootam macha allah di moomeelam loolu day am solo kon ma fàttaliku mi suratu taha ak suratul muhminuna lay bind bu pare mu bind بسم الله الرحمن الرحيم 111 داف كو سافر دي ناندال اي نجابوتام يالا دانا فور سن خول يالا دانا لي راخاسال ليپ لو خامني سافال لا باتاي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو بيند 111 بوبو ما واخون بحروف المقطعه مانام دانكوي بند بار حرف ba muy téeméer ak fukk ak benn soo paree nga def ko saafara fa tabaarakala di koy togg ak dugub si kàttanu yàlla ak barke la lépp luy saafara yàlla da na la koy woyofal lii nga koy togg ak dugub di xewlu léegi nga def koy ndox di naan lépp lu woon si yaram si tawar si kàttanu yàlla ak la yàlla dana la ko woyofalal yàlla dana la ko saafaral si barke basma la batay kep ko ko bind 111 mm, babu ma wax nga di koy rawati ne it bu fekke ne da ngay layo ta bañ ñu yay la ta fekkin nga ne si dëgg nga ndiko si def ko kar ko 99 bala ngay dem si bara ba ngay layo si katnu yalla ak barke la yalla dana la dimbal ba kenn du la not kon defena lolu lu am solo la. basmala it bokk na say ngëneelam ku ko mën a def euh, quatre mille quatre cent vingt neuf di li mu fattaaxu te mooy ouverture def ko saa def ko limbo bi def ko saafara di koy naan baax na surtout ki nga xam ne bii mu ngi si néegu sëy taamagul taqandeer mu def ko saafara ndox bu bëri di koy naan si barke bas bismillahi rahmaani rahim bu ko nit di dégg lu bari nag ba tax mu xeeb ko te fa tabarakalaa nit mënoon na lay laaj ismullaahi soo ko ne la nàngam danaan ah kii de daf ma nëbb wala joxuma dara te wallaahi la ma waxoon rek lépp a ngi si macha allah ndax li ma la waxoon juróomi tur yi mooy mooy bismillaahi rahmaani rahim te juróomi tur yooyu fa tabarakalaa tur du koy gën a tur du koy ëpp leer tur du koy gën a tur du koy gën a màgg te mooy allahu wahaabu rasaaxu karimu latifu mu mel ni ki boo waxee bisimilahi rahmaani rahim wax nga tur yi allahu wahaabu rasaaxu karimu latif fa tabarakallah bokk na si bisimilahi rahmaani rahim képp ku bind wa samay wa taarixi juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon wa samay wa taarixi soo paree nga bind bismillahi rahmaani rahim 235 def ko saafara di koy naan lépp luy xeetu tawatu sayatin si kattanu yàlla ak barki bismillahi rahmaani rahim yàlla dana la ko saafaraal billahi la si la ilaha illa huwa loolu xat yàlla nan ko képp koo xam ne yàlla def na mu dajanteeg émission Duha su ko soobee mën na see boole reenu lingom ak reenu ngeer wala reenu digor fa tabarakala def ko saafara di koy naan juróom-ñaari wa sama i wa taarix ak 235 la ka koy bind nag day sol lu weex day jublu penku it loolu lépp pour jox leen lépp rek bañ leen see nëbbal dara nu baaxee lépp fa tabarakalaa loolu laay eh, yoon bi ndax sunu yéene nanu yàgg di koy waxe mooy ñëpp mucc ñëpp yokk loolaay yéene doxaa yàlla nga nu si dimbali depuis 2012 ba léegi fa tabarakallah yoon booba la ni doxee te ñaanunu yàlla ñaanunu yàlla jàdd ko te mooy saa yu nu ne ya ngi ni si seen émission Wadduha képp ku déglu mën sa jëlee loo xam ne dana la dimbali si sa man dana la dimbali si sa dund foto fa tabarakallah loolooy sunu yéene ñépp mucc ñépp yokk Yalla, yombalal ñepp te dekk ti ak sangu te fa tabarakallah yalla saytaane yéene yene it fa tabarakallah yalla ngunu si dimbale am nit ñe gën am lepp ni ko benn mag di waxe sun la don jox fukki nit ak fukki dërëm mu ne jëlal fukki nit ñi am fukki nit ñi dana dana sol fukki nit am fukki dërëm min man na lay yomb te fa tabarakallah fukki bu jexé nga jexal te macha allah ay doomu adama yoo xam ne bii amaana gisee sax mosul am seen digganteeg ñoom te saa yu nu defee seen julli wala nu def seen askar dana la yónnee xaddiya layone la yónnee ñaan te lenn nag dama gisul lu gën ñaan si fii nu nekk muy àddina ak ëllëg bar sàq lu si gën ñaan gisuma ko te nu ngi loolu fa tabaraka da lay woo di ñaan di ñaan di ñaan bay jooy wala nit am problème déglu la dellu si ba nga xamee ne bi macha allah xelam day dal yaakaaram day bees te yaakaare lépp yaakaar mooy lépp macha yàlla bu ya yaakaar tas yal na yàlla mottali yéene yi fa tabaraka la ba doxaa fanu yéene mu àgg fa. yàlla kàttanal nu ba mu àgg fa comme ni ne ko sunu imam do ñaanalee rek nee na moom feeg déggul Wadduha FM <laughs> nee Wadduha taxawagul si kon yal na yàlla barkel ko barkel ñaan yëpp it barkel ñaan yëpp fa tabarakalaa sunu jigéen soxna Faal maa ngi koy nuyu bu baax fa tabarakalaa di ko ñaanal. kon Iba Mar mën nga am loolu yëkkatil su ko defee mbokk yi dinañ mën a wettali ñun émission bi. suñu jaaree si 33 33 868 27 62 33 868 27 62 alxaji Fallou Ka moom it maa ngi koy nuyu bu baax di koy siyaar نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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

ودها يلا موجيجين يور يور لا لبا يلير الله محمدو سي سمارا وابور اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد يا للقرصين يا محمد يا من القرل يا من المنلو محمد رسول الله su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yeneen dee nga ka ngay way dee na sa way wa niil na gëjoon naa di taalif ngir alhamdulilah jërëjëf man ngeen no topp si 33 800 bismillah bismillah waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw man rek man la Serif dama doon déglu léegi léegi. ah sëñ Serif. jàmm ah jërëjëf. jërëjëf liggéey waxtaan neex na yéen yàlla seen xam-xam. amiin amiin amiin jërëjëf. waaw kay ñun ñu dañuy def examen léegi ñaan examen xanaa doon si jox. waaw incha allah dinaa ko noté léegi si kattanu yàlla. waaw ñaan examen ñu jox baax na incha allah. jërëjëf maa ngi koy noté yan yàlla barkeel. ñaan examen ñu ngi koy waaw incha allah noté naa ko incha allah. jërëjëf jërëjëf. 33 868 seen émission Wadduha bisimilah. waaw ah, sëñ bi Cissé ñu ngi ziar. yal na yàlla nangu Adja. ñu jërëjëf yal na yàlla barkeel. yal na yàlla fay. amiin amiin ah, yàlla barkeel. Amin, amin, amin amin amin job, amin jërëjëf jërëjëf barakallah 868 27 62 33 bismillah bismillah asalaamaaleykum salaam wa rahmatullah waaw Baye Mara Cissé waaw keñ Adja waaw ah, am kolo càndum la. Ah, soxna Ami ñu ngi lay. waaw maa woote woon bi bee paase. dëgg la dëgg la dëgg la waaw waaw noo ngi ziar bu baax. jërëjëf yal na yàlla barkeel la. amin amin càndum jërëjëf yaa ngi wax dëgg yàlla yaa ngi jox ay ñaan yu am solo. yal na yàlla barkeel lépp. ñu ngi ciy barkeel bu baax a baax. yal na yàlla barkeel lépp càndum. waaw amin amin yal na la yàlla jàppale. amin amin jërëjëf yàlla may leen wér. amin amin ci barke Wadduha. amin amin amin càndum. ok si si jërëjëf jërëjëf yal na yàlla dafa jàmm. jërëjëf amin amin. ok jërëjëf. <laughs> 33 868 27 62 seen émission Wadduha 600.8 33 868 27 bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi ziar fii man la Soxna Ndiaye aéroport. ah Soxna Ndiaye aéroport maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax di ziar sëñ bi tamit. ñu ngi lay dégg incha allah jërëjëf jërëjëf maa ngi ziar suñu xalif général wallaay ndeysaan mu ngi lay fay ndokkeel bu baax jërëjëf jërëjëf ci weeru gàmmu bi jërëjëf jërëjëf ñu doon laaj ndax amu leen euh, tegtal pour ay bët yi ñuy wax dafa am tension waaw incha allah maa ngi koy natt si mu yàlla waaw incha allah mm-hmm. mm-hmm. baax na incha allah baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf mm-hmm. <laughs> soxna Ndiaye yal na yàlla barkeel macha allah soppee doxaala lu yàgg macha allah 33 868 27 62 bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa soxna Diarra bu Kër Masar. ah waa nu lay siyaare lu bari. yal na yàlla nangu ziar. amiin jërëjëf jërëjëf Mbodj weeru màgg bu tedd bu sell wi. jërëjëf Mbodj. dina ñaanal gudd fan bu ànd taw feex. amiin amiin amiin Cissé. jërëjëf ngay ñaanal bu wér a wér a wér. jërëjëf Mbodj. nga dañoo mënul wax ci yow lu weesu mbaax waaye buñ ko mënoon wax sax dañ koy wax. fii yàllaay jërëjëf jërëjëf Mbodj. ndax yàgg naa ñëw foofu ci daara ji yàgg na depuis 2013 ba tey. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. dinaa sama doom nga ñaanal ko macha allah. wallaay wallaay ndeysaan di fa xaritam nga ñaanal ko ñaari yoon macha allah. wallaay yal na yàlla barkeel leen. yow Cissé li ngay def dañ li nga li la yàlla mën loo dañ koy gisul sa bopp yëgoo ci sa bopp lépp lépp nga jël ko yàlla subhaanahu wa taala wallaay ndeysaan mooy lépp wallaay wallaay dañ lay ñaanal gudd fan jërëjëf yàlla yàggal fa taxawaay amin amin yàlla ya, sàmm amin amin yàlla ya, amin amin aja amin di ko ñaaral nag sa rakk si xam sa soppe sama sama xarit sama rakk sama doom sama lépp wallaay ndeysaan walai wallaay mu ngi lay fay si sama kàddu wallaay wallaay mu ngi sama kàddu liggéey bi siise jërëjëf jërëjëf amin amin amin dara jëy Muhammad sallallahu jàppandal la. wallaay bég nañ mbooj mbooj. ñoo la gën a bég. yal na yàlla lool bég nañ lool. ñoo la gën a bég Cissé jërëjëf jërëjëf Jaara jërëjëf macha allah yal na yàlla barkeel ko macha allah bokk na si soppe Wadduha yu yàgg macha allah yàlla barkeel njabootam 33 868 27 62 33 868 27 waaleykum salaam wa eh, kan la Mbaye. Ndour la Ndour. ah Ndour sëñ Souleymane. yàlla nangu Ndour. jërëjëf Ndour. ñu jàppale ah, yaa ngi am Wadduha. yal na yàlla barkeel la. Ndour def nga lu baax jërëjëf sëñ Souley yal yàlla barkeel la. Ah, nu sa yaay ak mbokk yi ñëpp. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sëñ Souleymane 33 868 27 62 seen émission Wadduha si Almadina FM 100.8 97.8 sa Kaolack seen mbokk Alxaaji Modou Cissé Mara Cissé di leen koy defal bismillah salaamaaleykum. wa Rahmatullah, mbokk boobu xam naa mu ngi si yoon. ñu ngi siyaara bu baax sëriñ Kalidou Ba di nuyu soxna yi soxna Aminata ak soxna Aysata di nuyu bu baax tamit madame Touré di koy wax mu jotal mu nuyoo bi si monsieur Touré di Aliou Touré fu tabarakallah ak euh, Babacar Cissé Antou Cissé ñoom ñëpp nu ngi lay di nuyu di leen siyaara bismillah bismillah Eh, mbokk boobu 33 868 27 62 bisimilah. allo salaamaaleykum sëñ Mara. maaleykum salaam na yàlla nangu kan la. alhamdulilah Habib Habib Mbaye. ah tey da guddee reer xam nga. dama demoon géej maa ngi doog a teer nii. ah ndeysaan man kay xel doog a pare nii. <laughs>

gisee. ndeysaan ku baax la ku baax la jànd noo gisee wallaay wallaay wallaay. def na def na ah, loolu bég naa si macha allah Wadduha njaboot la. billaahi <laughs> bëri na si ñoo xam ne macha allah. Eh, émission Wadduha tax na xam ne. la man moom day sopp. sopp hmm. naa loolu loolu loolu neex nañu lool macha allah. bu ma sañoon nag di feex moom loolu neex na nu loolu neex na nu loolu neex na nu Mbaye. ñu ngi siyaare woote ñëpp nag. jërëjëf Mbaye waaw ñi mën la woote ñëpp te seen xel nekk si émission bi. wallaay yaa moom Habib Mbaye premier auditeur. <laughs> waaw jërëjëf loolu moom kontaan nañ si moom moo taxit moo taxit moom suñu ootee ñu ñuy ñëpp. yàlla wallaay ndeysaan yàlla yàlla may la barke doxaa ñu ngi lay nuyu di la ziar yàlla na yàlla may la barke doxaa nag géej baa mu ngi xewale waaw alhamdulilah yàlla na yàlla na sax yokk amiin temps yi eh, moom si ginnaaw moom dëgëroon na. avant yàlla musa ñëpp si ayu ndox. <laughs> amiin amiin temps yi avant baax na yàlla dina yokk xewal yi si kattan. waaw yàlla dina yokk xewal yi jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla barkeel la. jërëjëf barakala fik di Habib Mbaye premier orateur yal yàlla yokk ko barke yàlla may ko barke doxa fa Eh, bisimilah. bisimilah salaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. sëriñ yàlla nangu yaram. ñu ngi kontaan yàlla nangu. amiin ñu def. jërëjëf jërëjëf. sëñ bi man de mhm, mhm. na naa ci jamono doon naa damay yaakaar baax na da ngay yaakaar muy tas. waaw loxo bi dafa ban lu fa taxaw dem. dëgg la. <laughs> baax na incha allah naa ko. yaa ngi danga di faral di saraxe. waaw eh, baax na baax na incha allah naa ko si kàttanu yàlla. waaw baax na incha allah balay jeex dinañ si ñëw si kàttanu yàlla. bëggoon naa bëgg hmm? yàlla. nga. si kàttanu yàlla macha allah ñoon jëmm yu ñàkk solo la na ngi géejewaay. incha allah si buntu lycée maam Limaamu Laay bu géejewaay. buntu lycée Seydina Limaamu Laay. inshallah bo boo fa wàccee rek da nga gis tableau bu no bind keur Mara Cissé Touba téléphone keur Mara Cissé. inshallah so topé feles bi da nga ñew ba sa keur ga. incha allah boo boutique yi mu dendel it ko lacc keur Mara Cissé dina la dekk way bi inshallah inshallah lu dul besu aljuma ci katnu yalla inshallah inshallah mhm, yalla yalla barkel la. amiin amiin jërëjëf da ngay doro jot émission bi. waaw léegi laa bu nekk si kàttanu yàlla dimanche bu nekk da ngeen ko am fii si Almadina. incha allah incha allah yal na yàlla barkeel. amiin baax yàlla may leen barke Duha. amiin yaa rabbi baax na. baax na jërëjëf jërëjëf uh-huh. incha allah noté nañ ko 33 868 27 62 mooy yoon bi 8 33 868 27 seen émission wadoha si Almadina 100 point 8 tey nu doon barkelu tuuti rek sa basmala ki si yoon bi bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salam wa rahmatullah. sant bi. ah ndeysaan sama sang bi El Hadj Modou Guèye. ñu ziar wér. Eh, Guèye Guèye. ñu ziar wér wér. alhamdulilah jërëjëf Guèye. di la di ñaanal tamit auditeurs yi koy déglu yëpp ndax dëgg yàlla macha allah nga kontaan si ñoom ñëpp képp ku ma dégg daal damay dégg kontaan naa trop. daal wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf waaw képp ku ma sa voix sànq ma si nii rek sama xol day dugg te wax macha allah. wallaay Gaye jërëjëf ndax képp ku da ba kii wallaay ndeysaan di la ñaanal yal na yàlla guddal fan. amiin amiin amiin amiin kay amiin amiin amiin kay. amiin kontaan nañ trop trop dama mën a wax dama wax dëgg yàlla. Mm-hmm. waaw mbégte gi moom macha allah wax dëgg yàlla moom foo ko takk weesu la. wallaay xam nañ ko xam nañ ko bu baax <laughs> xam nañ ko bu baax kay xam nañ ko bu baax. wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Gaye jërëjëf jërëjëf Alxaji Modou jërëjëf suma diggante yi rek macha allah wax dëgg yàlla. wallaay ndeysaan wallaay jërëjëf bég nañ si ah, loolu bég nañ si loolu. jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf émission bi am na solo trop jërëjëf jërëjëf gay gay yal na yàlla may la barke duha amin amiin yaa rabbi eh, yàlla def la mag dañ koy ñaan li comme ni nga waxee léegi rek hmm. eh, eh, rajom dañuy ñaan wala wala télé wallaay ndeysaan amiin yàlla na ko dina am si kàttanu yàlla wallaahi wallaahi wallaahi doom bu baax na dina am wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi jërëjëf jërëjëf jërëjëf Modou Modou allah soppe te allah lenn dafa gën lu rëy cofeel ñu jël ki si yoon bi bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa sant bi yaram. baax. jërëjëf baax. alhamdulilah. baax baax. ah man de maa ngi soog a ah, allah dimanche bu nekk si kàttanu yàlla. Ah. dimanche bu nekk dinay am. waaw ma am nag am nag lu ma sonal lool. Mhm. ma bëgg nag nga jàppaleel ma ci bu fekkente ne mun na nekk. incha allah. bismillah waaw parce que man daa am benn soxna si ma bëgg lool ma bëgg ma soxna soo bëgg mu bëgg la waaw waaw gën a de macha allah waaw léegi nag ma bëggoon ko takk sama luy gàllankoor bi dafa am gàllankoor du gàllankoor bi samay para rek ñoom ne ma du ko takk te man moom laa bëgg quoi ndeysaan say para noo jógagul de waaw waaw léegi xam naa ni man su ma ko tamit mun na ma indi lu ne yàlla baax na ñaan moom rek waaw maslaa maslaa rek tey ñaan si kattanu borom bi. waaw ñoom it macha allah ñu la bëgg lan xaj na ñàkkul <laughs> mbir la. waaye day ñaan rek day ñaan tey maslaa ak ñoom. waaw si kattanu borom bi jëlal sama numéro it bu nu jokkowaatee lu la si mën a laaxe biire nu laaxe biire la ko si kattanu yàlla. jot nga koy am di wala. sa numéro bi. waaw. waaw am na benn numéro bi mu amoon de. waaw waaw waaw su soo coupé ne dinaa la ko joxaat. waaw yal na yàlla barkeel. jërëjëf waay yal yàlla mottali la loola it ndax macha allah yàlla loolu ndogalu yàllaay dogal. ay nit di bëggante. Eh, waaw ku sañu nit macha allah loo bëgg rek muy sa wërsëg. waaye ni may wax masalaa la ak waay jur yi bu baax tey ñaan yàlla defal la sa lëggan. amiin yaa rabbi. jërëjëf baax na. soxla bu rëy la nag macha allah <laughs> bismillah bismillah. allo. waaw bismillah. sëñ naa def. ma ngi sant Adja. wax dëgg yàlla man maa ngi doog a déglu émission bi. Mm-hmm. waaye ñaan yi ma dégg moom am na solo trop. yal na yàlla barkeel lépp. amiin amiin man daal ñaan yi nga joxe sànq. ba mm-hmm. moom a xaw a rëcc. Mm-hmm. ak sa numéro téléphone. waaw incha allah dinaa la ko jox dimaas bu nekk ci kàttanu yàlla. man ngeen di koy wettali ko. ah dinaa la jox numéro bi soo raccroché incha allah. waaw yàlla barkeel jërëjëf Adja. jërëjëf jërëjëf. numéro Wadduha muy numéro Mara Cissé pour ñu ko amul te itteewoo ko 77 la 617 70 44 617 70 44 di fàttaliwaale ñëpp site bi te mooy lépp loo xam ne bëgg nañ koy xam si Wadduha sunu defee www.wadduha.org lépp ay. émission yu bare ma nga fa yoo xam ne bi ma nga fa pour ku si bëgg di wettali ko danga ko fa fekk ay émission tele it ma nga fa waaye ay interview yu nu def ak ay journaux ma nga fa ak bépp information bu nu bëgg a xam si Mara Cissé moo xam pharmacie bi la moo xam pharmacie Wadduha la ak point de vente yi moo xam tamit taxi Wadduha la te muy macha allah loo xamee ne bi képp ku fa ku xam ne bëgg nga fay ñëw te bëgg mu gën a jàppandi wala bëgg nga am lu la indi lit mën nga koy contacter yooyu yëpp su ngeen defee wadduha point org te mooy gannaaw 3w point wadduha da ngay def w a def ñaari d u as a point org loolu mooy site bi fa tabarak bépp information bu nit ittewoo rek su ko defee dina koy am si Mara Cissé 33 868 27 62 bisimilah. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Cissé na ngeen def. nu ngi sant bu baax yaram. alhamdulilah. alhamdulilah. man maa la woon fan yële. benn suba. benn safoor. waaw dem naa ba gisanteeg. yaa Aram Ndiaye bu nekk fële tënkee. ah ndeysaan ndeysaan. Uh-huh. waxtaan nañ bu yàgg. Uh-huh, uh-huh. jour bu ma la woowee fa dem. waxtaan lu yàgg yàgg. waaw kontaan naa si. wallaay ndeysaan ma ne ko waxtaan nga ku baax Adja Aram. waaw waaw baax waxtaan. wallaay ndeysaan wallaay ñu ne ma bi ñu jógee màkk jaar nga fa ndeysaan dëgg la dëgg la. Ah. recruteur sama jigéen la macha allah. wax dëgg yàlla. wallaay wallaay loolu bég nañ si jërëjëf. jërëjëf baax na bu soobee yàlla xam naa dinaa baax na incha allah baax na. jërëjëf baax na jërëjëf jërëjëf. jërëjëf na barkeel la macha allah ni ko waxee Adja Aram nit dana koy woo nekk si jafe-jafe dalal ga mu koy dalal rek danay tax lu bëree bari macha allah wàññi loolu nu ko si sant eh, liggéey bi muy def si Wadduha it nu ngi ñaan yàlla fay ko ko si njabootam yàlla yokkal koy xéewal yokk wéral cëram yokk guddal fanam noonu nakal ni la demee sunuy waajur yi nekk point 1 macha allah di leen ma masawuwaat bu baax si coonaay wuyu téléphone yi coonaay gindi nit ñi pour nu fay ñëw waaye coonaay tamit xam nga macha allah ku woote moom yaay gis ko nekk. Eh, yooyu yëpp nu ngi leen si massawu di leen ñaanal tamit di leen ñaanal di ñaanal seeni njaboot di ñaanal yàlla yokk wéeral seeni cër yàlla yokk guddal seen fan yàlla it barkeel njaboot gi yëpp it fa tabarak laa di nuyu yaayu Mouhamed Mara Cissé 33 868 27 62 mooy yoon bi seen émission Wadduha si Almadina FM xam naa. sunu demee ay minute yu néew rek danan danan ñew lenn li fi ñew sa ay ñaan alxaji fallu ka gis na message bi ak ñaan yi yow yaay alxaji fallu bo ñaané rek day am <laughs> nu ngi am bekté bu baax bismillah ki si yoon bi salaamaaleykum alaykum salaam wa rahmatullah sa Fara kañ yaram Alaaji Diagne Alaaji Diagne. Ah, nu ngi lay siyaare Diagne. jërëjëf Diagne Diagne. yal na yàlla nangu Diagne. ah ndeysaan ndeysaan sëñ Habib mu ngi la doon nuyu léegi. da nga génnoon moom. wallaay ndeysaan wallaay Diagne. ah Habib ah, ah, ñu ngi koy jaar a baax. wallaay mi ngi la doon léegi. wallaay ndeysaan loolu bég nañ jëmmi Waddu Waalo bég nañ si bég nañ si lool. waaw dëgg yàlla kontaan nañ trop macha allah. jërëjëf jërëjëf. waaw euh, ma keroog moom ki la fekkee moom dal na suñu xel trop macha allah. wallaay ndeysaan jërëjëf Diagne. waaw dëgg kontaan nañ baax la macha allah jërëjëf jërëjëf Diagne. waaw ñu ngi nuyu auditeurs yu Waddu yëpp. jërëjëf yal na yàlla barkeel. waaw topp yi Waddu Waalo yëpp ñu ngi bég nañ jërëjëf a bég ñoo gën a bég jërëjëf jërëjëf alhaji jaañ bu parcel momi it doon macha doon ñi nga xam ne ñu njëkk jokkoo ñun la si waddoxaas almadina e, fa la moom nu ngi koy ñaanal di koy siyaare lu bari machallah allah yàlla dogal na suñu gisee nu ngi ñaan yàlla yokk ko barke yokkal ko ay xéewal 33 868 27 62 mooy yoon bi 800 68 27 62 mooy yoon bi fa tabarakalaa émission Wadduha Yaxya ah, sama doom. <laughs> gëj laa dégg ah, ah bég nañ si jokko bi Yaxya. waaw sëñ keroog waaw mu ne rajo bi moo xaw dëgg la dëgg la wax nga baax. <laughs> waaw Abdoulaye euh, Mbengue. Euh, euh, mu ngi lay nuyu mu ngi lay nuyu Yaxya. war mu nu ngi sant bu baax Yaxya. kontaan naa si waxtaan tey bi. jërëjëf Yaxya. leen ñaanal Yaxya amiin. amiin li nga ñaanal borom a rajo bi bu baax a baax. wallaay ndeysaan. ak ñu jot a woote si rajo bi yëpp di leen ñaanal. jërëjëf jërëjëf. yal na leen yal na leen yàlla fay. jërëjëf Yaxya Thiam. fale leen tam amin amin Yaxya. di leen ñaanal tam ne si barke gàmm bi. yal na la yàlla may li li li li ngay bëgg si sa jokkoo. amin amin Yaxya yàlla boole na ko jullit yëpp. amin amin loolu tam la wàddu xaar tam ne. mu dem kanam rek incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf léegi dama bëggoon laaj tam le ndax lii mhm. bi mooy. li nga defoon ci biir passé si téere Wadduha bi. Mhm. ndax dafa toog beneen walla dafa dafa paas walla amagul amagul taw. Euh, lan. mooy. du ma doon génne téere Wadduha bi dafa am beneen téere bi nga génne walla amagul. Euh, déedéet déedéet Wadduha moo fi nekk waaw. incha allah yéene nañ si kàttanu borom bi. Euh, deuxième édition Wadduha incha allah yéene nañ mu nekk euh, lépp si suuratu Yaasin si kàttanu yàlla sunu yàlla dimbalee deuxième édition bi incha allah moom la ñu yéene mu nekk si kàttanu yàlla yéene nañ si kàttanu borom bi nu barkeelu si lépp si suuratu Yaasin euh, Wadduha it mu ngi fi ba léegi macha allah 313 pass la macha allah lépp yi doon ay ñaan. ay nawafil ay askar nañu koy waxee la sa nekk lépp doon luy dimbale doomu aadama fii si dundam ak lu koy dimbale ëllëg tamit nu si sant yàlla bu baax comme ni ni faral di koy waxee bu baax ndax macha allah lanu si ni seer ak lanu sa yéene woon lépp macha allah yàlla defal nañu si lu kawe njort. jaam nag borom benn la in sakartum la asidannakum kon mu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin si kitaabu duha ndax du lu yomb macha allah taalibe su ñàkk solo defar livre boo xam ne macha allah dongab daara mën na koy jël te yiw rekk la say am intellectuel mën na koy jariñoo tey yiw rekk la say am loolu lu jara sant yàlla la te yàlla defal nañu ko si kitaabu wadduha 33 868 27 62 dañuy nuyuwaat bu baax it eh, Wadduha Mbour eh, Sali Carrefour eh, soxna Ka la tabarakallah madame Niang ak sëñ Yaxya ak ñi fa dëkk ñëpp it ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal sunu rakk Mbay ñaŋ nekk Murit di jàngale ak Alxuraan nu ngi koy nuyu bismillah Bismillah. allo Bismillah. waaw ah, sëñ bi maa woote woon léegi émission ban heure lay commencé. 22h minuit. Hein 22h minuit. 22 heures minuit. waaw chaque dimanche Inch'Allah. allah. chaque dimanche Inch'Allah, allah waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf. da ngeen am rediffusion bi incha allah mardi. C'est ah. fajar. mardi c'est fajar ban C'est incha 6 heures. 6 heures du matin Inch'Allah. allah. waaw yàlla barkeel. amiin. 33 868 27 62 bisimilah. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Thiam eh, sant bi. Thiam Thiam. yàlla nangu. na affaire examen yi. waaw. ñaan examen yi. waaw incha allah noté naa ko fii. waaw boo na ko mënee baaxee. incha allah noté naa ko dina dina am si kàttanu yàlla. wala émission bi jeex incha allah tey wala prochaine fois. incha allah dina am tey si kàttanu yàlla. waaw waaw ñu ngi koy taaxal ko. yann yàlla barkeel. jërëjëf. yann yàlla barkeel. yàlla ubbi xel yi macha allah lépp lu waaye xëccu si lu yàlla gërëm yàlla kàttanal ko ba mu jot si. تمي عندك جيجلا بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيد مارس يا رم كيف وخ شيخ عبد الخدوس فاي اه سيد عبد الخدوس ما نسي ياري لو بري فاي اه سيد خدوس بيغنا سي جوكو بي اه والله بيغنا لي ما شاء الله بيغنا سي لول جيري جيف جيري جيف فاي yow moom sa lépp rafet na wax dëgg yàlla jërëjëf sëñ Abdou Khoudous jërëjëf na wax bi rafet na jërëjëf jërëjëf jërëjëf Faye xanaa eh, namm si bég naa si jokko bi <laughs> lay lay day <laughs> ah, ah, koy rafetlu lool jërëjëf jërëjëf Faye di wax mbokk yi daal leen wax dëgg yàlla yow njëriñ képp nga fekk jërëjëf jërëjëf Faye eh, lépp njëriñ la. wallaahi ndeysaan wallaahi fay jërëjëf. kon kon kenn képp koo xam na yaakaar mm-hmm. yàlla na ko yàlla. amiin amiin na ko ah, ko yàlla boole fay. Eh, ñoo ngi rafetlu di naa yàlla xam na ko bég naa. <laughs> bég naa lool fay wallaahi bég naa jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Khoudous jërëjëf amin amin way yàkk amin am jërëjëf bég naa si jokko bi macha allah lu nu neex la it ndax kilifa la di borom xam-xam di sëriñu dara su bàyyee ay ittee macha allah eh, def lii mu def bég nan si yàlla def nu nekkandoo fee sa siiwal FM Abdou mu fay def émission yu mel ni comme yi bu nu jokkoo day doon mbégte si man Bismillah allo waaw bisimilah. yal na yàlla nangu yaram. Eh, ñàkkul dina ñëwaat incha allah 33 868 27 waaw Yaram. yaa ngi Habib waaw sëñ Abdou Khoudous moom moom la ñuy kontaan moom rek. moom di yàlla daal yàlla moom it yokk xam-xamam. wallaahi amiin amiin waaye tamit lépp nag yaa liggéey nit moom bu baaxee moom ñàkkul dara wax dëgg yàlla. Hmm, jërëjëf jërëjëf waaw kontaan nañ ci moom te tamit nag maa ngi nuyu sama benn maam bu ñu naan Fatou Gueye. Fatou Gueye. waaw ndax

ku amul woon ab yar sax déglu la buy woote dina ànd ak ak dal ak yar ndees wallaay mbay yow man saa su ne su ma nekkee sax si géej ñi samay moroom yi bàyyi des fois dañuy wax wax ju dëgër tooñ ma mais su ma demee bay ci su ma billahi su ma la xalaatee rek dellu ginnaaw barke wallahi ndeysaan jërëjëf mbay te loolu loolu nag njariñ la moom wax dëgg yàlla ñu si kontaan bu baax jërëjëf jërëjëf léegi rek bi ma duggee si kër gi daw profité takk kas yi am na sama benn mag bu ne ma xanaa émission bi dafa commencé ma ne ko waaw ah ndeysaan ndeysaan wallahi loolu ca fel la ñoom xam nañ wax dëgg yàlla ñoom xam nañ ñoom loolu ca fel la yàggul nag waaye man nañ si noo xam te ñi daal macha allah wallahi wallahi wallahi ndeysaan loolu ca fel la yàlla yàlla may la barke du xaar ya. ñu ne dina ko dégg mu ngi lay. fay si sama kaddu dinañ faral di ko jékki-jékki daal di ko namm. wallaahi ndeysaan wallaahi wallaahi. mais mardi bi passé moom émission révision bi rek si mbiru technique incha mais di ngeen ko am mardi. di fajar incha allah incha allah waaw waaw. jërëjëf yal na yàlla mu yal na yàlla yokk la barke yàlla may la barke duha yàlla defal ko auditeur ak auditrice yëpp it defal ko soppe yi wëllëre yi Eh, sëñ Abdou Khoudous eh, maa ngi lay seddal na bég naa si jokko bi macha allah eh, ñaan yi ma ñaanal yëpp yal na ko yàlla boole bisimilah ki si yoon bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, <laughs> waaw kii a duggaat. ah sëñ Abibou. waaw moom ma tax a duggaat nii. ndeysaan wallaay. waaw wax lépp te mu nekk lu dëgg. wallaay ndeysaan. man nii ba ma xamante yow ba léegi. Mm-hmm. maa ngi waat ci yàlla barke la ilaha illallah muhammad rasulullah rawal rawal waaw xoolatuma lépp loo xam si lu jaaxaan ak lépp loo xam si lu bon la dama ko jënd teg na la wallaay ndeysaan wallaay waaw xoolatuma lenn si àdduna loo xam dafa jaaxaan loolu nii lenn hmm. loo xam si loo xam si neexul yàlla neexul yàlla ci bi dama jënd teg na la wallaay ndeysaan aw ma soxla ci keneen aw ma soxla ci waxul leneen leneen bu moom lu dul jaamu yàlla ak sama liggéey. su ma wàccee su ma toogee fi may tooxee yow toog nii nelaw yi sax su ma ko amoon lu ma gën nelaw yi toog di jaamu yàlla moom gën a wallaay ndeysaan loolu xam nañ si dara te lépp si kenn ba ma xamante ne xëy na yàlla moo ko jaarale foofu wallaay ndeysaan wante maa ngi ñaan si yàlla te doomu aadama yi képp koo xam ne si jokka nga ak maanaam si loolu yëpp war naan doo ko rëcc at naka la xëy wallaay ndeysaan billaahi wallaay taala kontaan naa trop trop trop trop sama xol dafa sedd billaahi sama xol dafa sedd mhm, jërëjëf jërëjëf jërëjëf gis naa si ak yokkute ak njëriñ yoo xam ne lu ma fekk loo xam ne si wax dëgg yàlla rëccu ma ko di ñaan yàlla lii nga xam ne moo nekk sama xol ak lii nga ma defal maa ngi ñaan yàlla suñu borom moom bi dara tawul yàlla na la ko yàlla amiin amiin amiin kontaan naa trop amiin kay jërëjëf Gaye Gaye yal la yal na yàlla barkeel la yàlla may la barket Duha yàlla def la mag macha allah noonu ma ko waxee lu wér wér la xamante nan mën naa ne ay weer door di gisee waaye macha allah bismillah bismillah salaamaaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ Yaxya. waaw alhamdulilah yàlla nangu. alhamdulilah. maa ngi kontaan ci jot a jaaraat foofu yëpp. Hmm? ma ne maa ngi kontaan ñu jot a jaaraat foofu yëpp. ah ndeysaan jërëjëf Yaxya. di jaaree sëñ Abib. sëñ Abib Mbaye ndeysaan wallaay. di ziar bu baax a baax. premier auditeur. waaw di tam ne sëñ Abdou Khoudous Faye. Abdou Khoudous ku baax ndeysaan. waaw di ziar bu baax dama doon ko eh, sama sama wël. ndeysaan am nga wëllëre bu baax. Tafsir Thiam. waaw sëñ Tafsir macha allah ku baax macha allah. bu baax ku ñàkk ku ñaan. ak Thierno Jibi Sow. Thierno Jibi Sow wallaay ndeysaan. bu ziar tamit ko ñaanal baax baax. wallaay wallaay. voilà mu ngi lay fay si sama kàddu. papa Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane wallaay mu ngi lay fay si sama kaddu. di ko di ko bu baax a baax. wallaay wallaay Yaxya. ma lu ma gën a woote si rajo bi du dara maa ngi ko maa ngi ko déglu toujours tamit. wallaay wallaay wallaay ko déglu toujours. wallaay yal na yàlla def la mag. waaw jërëjëf di sakku yàlla yëpp lay xéwal. waaw jërëjëf barka jërëjëf Yaxya dafa am lu bëggoon pour nga baaxee ni. waaw bismillah. léeg lu ma ne comme ñetti ñetti loo xam ne koo xam ne yaramam day day taayal day tayel waaw waaw xam naa am na lu ma si may woon incha allah baax na waaw tam la ak wàllum tam la kuy jàng tamit pour lu koy jàppale si jàngam waaw luy jàppale ni si jàng comme kiis comme kiis waaw waaw baax na incha allah noté naa ko waaw incha allah noté naa ko yaxyaa yal na yàlla barkel la amin amin yàlla def la mag amin amin di nuyu waa rajo bi yëpp jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf yaxyaa jërëjëf jazakumullah xayran jërëjëf jërëjëf barkel barakallah euh, sëñ Iba Mar li si gën a neex ñi fi jaar ñëpp macha allah mën na leen tuddee xeleel ndax seeni at wóor na mën a seeni at ëppul fanweer loolu lu jara sant yàlla la bu yàlla defee nga am wëllëri yu mel noonu loolu macha allah lenn dàq ko muy alxaaji Modou Gueye di sëñ Yaxya mi bismillah nga xam ne macha allah jokkoo koo xam ne jokkoo ngeen ay weer te saa yu ngeen jokkoo cofeel la lay woon gisee am seen diggante yi cof loola yokk loolu yàlla rek rek rek rek moo ko lal lay taay bay lépp li wàcc illaahi la bisimilah ki si yoon bi. salaamaaleykum waaleykum salaam wa sant bi Adja. man Cissé laa sant ko. jërëjëf jërëjëf ah ndeysaan loolu bég nañ si. man damay ñëw kër lay gis ndax fu mu mës a nekk rek bu ñëwee dafa yebal kamar bu ñëw wax ko sama yaay. wallaay ndeysaan wallaay man fu mu nekk si dëkk bi rek daf may wóor man. wallaay ndeysaan loolu kër Mbaye Diouf. dëgg la dëgg la lu wér lu wér lu wér lu wér nga wax ndeysaan lu wér. ndeysaan yan yàlla barkeel yàlla ko yàlla yàlla yokk leeram wallaay ndeysaan waaw wallaay wallaay lu wér lu wér lu wér lu yàgg la lu yàgg la dëgg la dëgg la waaw loolu jàdd na loolu jàdd na loolu jàdd na Cissé Cissé Cissé bëgg na bu ko xam ku ne. xam mhm. waajuram. Mhm. ñu fas ànd Cissé. Mhm. duñ ko fonk bu baax. wallaay wallaay jërëjëf si dëkk bi sa pap royukaay la. wallaay ndeysaan te si suñu gisee. wallaay wallaay damay a waxtaan. incha incha allah jërëjëf jërëjëf bég nañ si jokko bi macha allah loolu ma wax lu yàgg la loolu mu yann yàlla beesal yërmande si ñooñu mu wax di alxaji Mbay Diouf sëñ euh, sëñ suur Ñang ak alxaji àlla si mi sama way jur yàlla def na te ñoom ñëpp nanga nga bar euh, yann yàlla beesal yërmande si ñoom yàlla beesal njëggal si ñoom euh, fa tabarakalaa nii mu def it wëllëre la tey dana bég dana bég lool waay bi fa mu nekk ndax sos dara macha allah sa doom nekk sa di ñot ñoti loolu la ku nekk di ñaan nu si sant yàlla bu baax di di yokk sant yàlla di yokki sant yàlla si waajur yi mënu tànnal fa tabarakalaa di lay ñaanal yàlla gën a beesal yërmande si ñoom 33 868 27 62 mooy yoon bi seen émission Wadduha si almadina xam naa sunu demee minute yu néew rek dana téyeen di téléphone bi jéem a tënk lenn si laaj yu fi ñëw waaye tënk lenn tamit si farmasi Duha nga xam ne bii macha allah niñ leen ko waxee woon dolli nan si xale buy kuy tuur ndox guddi dunu nay xale sax kuy tooyal lal te loo xam ne feebar la feebar la boo xam ne ka koy def def ko du du doon lu muy yëg. mën na koy dikkee gént mën na koy dikkee neneen si kàttanu yàlla dolli nan si pharmacie Duha loo xam ne day saafara kuy tooyal lal moom it ngeen mën koy am si kër ga te mooy géejawaay en fas buntu lycée Seydina Limamou Laye ngeen mën ko am point en tamit si station bi si booru station bi ngeen mën koy am tengej inshallah allah ku jaar si 77 617 70 44 fep fu mu ittewoo si barab yooyu rek danañ ko fa gindi xam ba mbour inshallah allah ko gindi mu man koy mu man na jappandi ci katnu yalla it bu nu yàlla dimbalee ñu bëré ñu nu ko doon laaj cangat yoo xam day faxas cat te muy lu upp xeet cat danay topp ni si bàmmeel ba si bàmmeel kon loo xam ne cat lu dansé la te ni ma koy waxee faxasu day am solo day xaw di mel ni ka saalañ lool maanaam ka bëri kawar lool bu watoo feex ga bopp buy feex ñaare da gis koo xam ne macha allah danga koy jox saafara su sangoo rek day yëg bu baax woyof gu yaramam woyof day mel ni ki dafa am lu diis lu na ko tegoon loolu teggiku na kon nuy raxas yaram yi surtout jamono ji day am solo lool yenn saa yi nit di raxasu na yére di tilimee nu koy fóot na matériel di pëndee nu di ko nu di ko kii nettoyé noonu it yaram noonu it lan war di koy raxase yenn saa yi si biir ak si bitti su dee si biir bi mooy looy naan ba lépp lu fa nekkoon si lu ñuul loola wu yu mel ki feebar yoo xam day am luy dox sama biir bu jant sooyee rek loola yeewu ne la doon tëdd su jant jógee mu dem tëddi ba bari na si ñoo xam ne seen guddi coona rek rek rek rek la ni dëkkee te yooyu dana si baax lool loo xam ne bii da nga koy naan sa biir di fees te du wala loo xam ne bii da koy def dugub maanaam da koy togg ruy wala laax lekk si ba biir bi fees na ma sàmben yeeg ñaseen bal baal <laughs> yooyu lépp lu mu fa fekk si naka su du noona bu lu fa newoon la di dund day commencé di feebar nona lay demee ba ne mi fàttoo eh, sëñ ba mu mel ki ngalaw day dugg nit doon lu tuuti waaye day màgg bu dee ga amul toujours rek day gën di dund day mujj dem nag ba macha allah daf koy ëpp doole ba saa yu ko soobee rek day tawat mooy ñi nga jog ne dund di jóg di feebar su aswir xaj ay waxtu la wala ay fan yu doyadi su paasee nu tëddati yooyu yëpp macha allah day baax nu koy faral di waxee ne ordonnance yi nan si boole alquran di koy naan ba mandi day tax la nga xamee ne bii ma nga sa biir yaram yi day jàpp nit su dee lu fa nekk la di dund loola faatu te su faatu rek allah day am jàmm waaye yaram yi nuy rax nuy sangatu ba lu sa fax lu sa tilimoon si loo xam ne bët du koy gis loola set te mooy nan koy waxee lu cet si kàttanu yàlla bu nu yàlla dimbalee balay gàmm gi yéene na moo am si pharmacie Doxa cangaay yoo xam ne day faxas lépp luy cat sunu yàlla dimbalee incha allah yéene na dimanche bii di ñëw nu annoncé leen ko pour ku mën a dem si barab yooyu man koy am sunu yàlla dimbale it yeneen yoo xam ne bi yéene nañ ko si def yu mel ni ki ba yooyu nu waxoon ne si kàttanu yàlla dinay aar yaram ba weñ gu ñuul du koy dugg wala nu man ko tuddee tul moom it sunu yàlla dimbale si kattanam ak man-manam danañ yenn mu ñëw si pharmacie doxa ni ki si cuuraay bi nekkee te allah muy cuuraay boo xam anti séeréer laa ko tuddee <laughs> ba maar nga baal ma bu fekkee daam la bokk ak ñoom <laughs> eh, mu nekk fayit kiis eh, macha allah mu ngi si pharmacie doxa bi mu nekk say gàllaaju njaboot te mooy loo xam ne bii day tax euh, njagamaar yi sunu ko bëggee sunu ko bëggul kenn du leen mën a yàq maanaam du nu mën a njaaloo mu bokk sayit fa tabaarakallaa gàllaaju kër mu bokk sayit jigéen ju wérul nu jigéen ju wann lor moom mu ngi si pharmacie Doha mu bokk sayit fa tabaarakallaa gàllaaju oto walla daamar moom mu ngi si farmasi Doha mu bokk si fa tabarakallah Bayre moom it mu ngi si pharmacie Doha mu bokk say toj liggéey loo xam ne lépp luy liggéey rek ci kàttanu borom bi soo ko jëfandikoo liggéey ba dey toj yooyu lenn la si yi nga xam ne bii mu ngi ci pharmacie Doha. kitaabu Wadduha mu ngi fi fa tabarakallah nuy yokkal leen si kuy tooyalal moom it mu ngi si pharmacie Wadduha fa tabarakallah yi nu wax képp koo xam ne itteewoo na ko du am nga duy luy jafe mën nga koy am si lu dul nu am jotaay si boo ñëwee si buntu lycée maam Limaamu Laay bu Géejawaay boo ñëwee si buntu lycée bi boo yéeg montagne bi rek danga gis benn tablo bu nu def Touba téléphone Kër Mara te sunu wëllëre alxaji fàllu ko def ko fa am na boutique bu mu dendeel tudd Touba téléphone boo demee si moom rek dina la woon dëkkuwaay bi wala numéro Mara di 77 617 70 44 ñi dëkkee boori Dakar yëpp mën nañ koy amee point 1 sunu defee si 70 922 23 75. ñiy dëkkee boori Tëngéej mën nañ koy am si 77 262 36 28 waaye ñi dëkkee Mbuur ak li ko war yëpp mën nañ koy am tamit sunu jokkook ñun si Sali Mbuur mën nañ ko fay am sunu yàlla dimbale si kattanam incha allah fan yu néew da ngeen ko mën a am Ngor wante it fan yu néew da ngeen ko mën a am Kër Massar loolu lenn la si lu nu tënk si pharmacie Wadduha xam naa Iba day am lu nu yëkkatil tuuti rek nu ñëw si yi lenn si laaj yoo xam ne ñëw na fi bala nuy yëkkati jotaay bi. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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

mu mel ni kii am na mbokk yu fi doon laaj bu dee ki doon wax mbiru cat daf koy sonal xam naa dama koy laaxee biire na jéem a xam bunti saraxam lu am am solo la nin koy waxee ne nit ku nekk nii mën nga koy waxee ne dafa am numéro numéro nit kooku nag mën nga see xam loo xam ne daf koy dimbale say sarax ba lépp luy naka sudul noona eh, mu di koy teggi waaye lépp lu muy ñoddi si ay xéewal yalla jappandalal ko ko ndax li ni wax ne ku lu war nit wara am dinay am lu wer la waye yenn ma sha allah man nay am lu koy téye ba nga xamne ne daf koy tim waye du wacc moy tax ñaar ngay gis xewal jek jek rek ñewando fekk tax xaj amana ben ben te waru a ñëw la ko wonay tax la ko téye woon moo doon gàllankoor bi mooy tax day am solo lool maa ngi koy digal muy xam yoon bunti saraxam di saraxe di eh, raxasu tamit di raxas yaram bi comme nan ko waxee woon di faxasu ba nga xam ne ne bi yàlla daf koy faxasal lépp loo xam ne saru xay ni wala lisaan la mm, muy si bëri lool ñuy wax loxo bi dafa bënn lu tege ci loxo bi dem xam naa dina leen ci baaxe du ñàkk waddu xay di ñëw juróom-ñeenti tabaraka yi ñëw ci alxuraan képp ku ko bind di koy raxasoo yàlla dina lay dimbale si ci kàttanu yàlla luy tege ci sa loxo rek barkeel fa tabaraka la xam naa ñàkkul émission bii di ñëw dinañ leen ko dicté pour nu mën a xam ci yan saar lay nekk ak nan la ñu koy jëfandi jëfandikoo nu ngi koy baaxe loolu na ma li ma waxoon léegi sa ba ci basmala 120 yi bisimilahi rahmaani rahim 120 baax na lool fa tabarakalaa kii bëgg bi yàlla di koy musal si catul làmmiñ su ko nee def ñetti yoon bii mu naan bii mu sangu bii mu takk wala mu takk si liggéeyukaayam ñi doon wax concours wala examen bu si mën a doon rek nu ngi ñaan yàlla ubbi leen seen xel dàq leen jaxasoo jaxasoo dinay yàq lu bëree bëri te nga dem ba boo waree bind rek mel ni dafa am lu nu la maas la nekkoon si yow lépp day dem dañu ñu bëree bëri bëri loolay nekk seen problème mooy tax ni ma ko waxee woon nan di naan lu bëree bari alxuraan ba la leen di jaxasee la leen di yàqal la leen di absenté lépp mën a randatu nu leen siy may fa saw fa yoo xaase bu xisaaban yasiran su dee concours la dossier yoo xam ne bi concours la nga bëgg yàlla defal la si jàppandal ku ko mën nga bind ko juróom-ñaar fukki yoon di koy sangoo durant sept suur suur bu nekk it boo mënee nga sikkar fa saw fa yu xaasibu xisaaban yasiran fa tabarakalaa yàlla mën na leen see defal nu am xisaaban yasiran wala it nu def fa saabixuuna saabixuun bu fekkee jongante la ba tey juróom-ñaar fukki yoon moom lañ koy bind def ko saafara di koy sangoo yàlla yi dana leen yàlla mën na leen jàppandalal la ñuy jongante nu am si ndam su nu mën a am lenn si barab ba nu koy defee nu def ko si comme lu mel ni xeer wala suuf waaye nu leen di déggal bu baax comme kiis bi ma may woon tey te mooy nu bind bismillahi rahmaani rahim dugal sa biir suratul ikhlas dañ koy dugal si xaaw xaaw allahu bi miimu basmala bi miimu rahmaana gi ak miimu rahim bi nu def ko saafara di koy naan fa tabarakallah kiis la bu baax a baax a baax si kuy jàng mbokk bi doon wax ki mu dafam ko mu bëgganteel macha allah nu ngi koy ñaanal yàlla nag déggoo am si diggam ak kooku mu bëgganteel eh, nu di koy wax ne waaye jur macha allah ku bëgg rek waaye jural la gën a bëgg amaana xaj na lanu gis ak lanu yëg amaana moom àggul foofu waaye nu nan koy waxee rek dafa bokk si nattu yi bëgg dara te jotuloo si ndax yàlla na ma koy waxee mooy faral di nattu doomu aadama kon suy amee rek nañ jiital ngor nu ñaan tamit la nga xamee ne bii moo gën yàlla defal leen ko danoo rafet njort lool si ne way jur waay jur lu mu bëggal doomam rek amaana yiw la fa tabaarakala su fekkee nag du lenn lu du mbiru jamono yi te mooy kii lii laa kii lëlale loolu du diine te bëri na si problème yu yàqu euh, Ibamaar looloo ko yàq sa doom bëgg dara nga xañ ko ko xañ goo tegul fenn nag lu may sa baay walla may sa yaay mm, lu nit di àtte na si jiital diine ñépp doomu bani aadama ak xawaalan bu dee ka mu bëgg macha allah ku ku jar a bëgg la te du dara lu dul mbiru jamono lii la wala lële la wala lële la ñun ñëpp banni aadama ak xawaalan noo xam ne loolu du diine loolu aada la aada nag macha allah euh, fi la ko fekk waaye daal nan gën nan gën a xam ne njaboot gi du moomee lu nu yàlla dénk la si njaboot bu bëggee loo xam ne bi du si am benn daanu yàlla nga xam ne bii yàlla daf ko jaare la si yow denk la ko rek waaye fa tabaraka la warul doonul moomeel ba lu la sa soob rek sañ nga koy def te ni àq way jur di amee si doom noonu la àq ni doom di amee si way jur noonu la way jur di amelee àq jaboot loolu it nu bàyyale ko xel bu baax di koy gën a dénk way jur yi fa suma juumul bu dee ki doon wax si mbiru gula glaucome bu ma jumul wala tension bët xam naa kan sul malik ndax bët sayaatin boo gisee nu ne la ñuy duggee doomu aadama bëri na si ñoo xam ne seen i bët ngelaw seytaane mën na leen a dugg ba seen tawatu bët looloo koy waral yàlla dénk nañu si kattanam yoon yoo xamee ne bii su fekkee ne lu mel noonu la si kattanam yàlla dénk nañu si yoon bët yu lëndam bët yuy metti waaye la àgg si muuru loolu amuñu si yoon si kàttanu borom bi bu nu yàlla dimbalee foofa mu tollu suy sëlmoo loola nu koy jox si kàttanu yàlla ak man-manam du ko paase ndax macha allah alxuraan miracle la te it fa tabaaraka la alxuraan léppam yiw la si kàttanu yàlla dina am am na téere bu nu génnewoon woon mu am ñetti ñaan. xam sunal xaaf ma nga fa xam suna xaafan kansul malik ma nga sa xijaab rasul ma nga fa doonoo ñetti ñaan ñoo xam ne doonoo bëgg nan koy waxee jamono defaru mooy tax nu defan ko benn nu defan ko benn ñaan def ko si benn livre nga xam ne bii mën nga ko am français wala alxuraan ku yàlla dogal nga am ko nga jël kansul malik ba soo ko mënee bind ñetti yoon bii nga góoral ko bii nga jigéenal ko bii ngonda ngaana te mooy bii nga maas ko sadda bii nga bind ko mm, noxta kese bii nga def ko yaxu kese di koy selmoo si kattanu yàlla ak man-manam yàlla dana la saafaral lépp loo xam ne tawatu bët la nu ngi koy baaxee su dee mën nay am livre bi mu am ko si kattanu yàlla yàlla dana ko si e, dimbale incha allah comme karaafilit nuy fàttali ñëpp ba léegi am na sa daara ja 6000 francs dañ say barkelu doon ñaan gu barkeel goo xam ne bi macha allah lépp luy mbiru jamono rek si kàttanu yàlla si xeetu tawat ak dàq saytaane kiirlaay dindi liggéey yooyu yëpp macha allah man ko am si Crafil moom it fa tabarakallah am na livre yu bu nu def pour muy Crafil moo xam français la wala alxuraan moom it ngeen mën see barkeelu si 6000 francs samsul bilaat tamit nga xam ne samsul fii bilaat tegtalal si ne jant jant jant bu fenkee rek réew mi yëpp la leeral noonu jant yi mel nag macha allah kuy jëfandikoo samsul bilaat da nga am xëy ba bayere fa tabaarakala moom it mu ngi si mu ngi si daara ja ku bëgg livre bi moom it ñaari junni lañu si weccikoo ko fa mu mel ni ki liy des ci ay minit bëreetul. bamar Mar eh, mu mel ki kii nu ngi ci jeexantalu émission bi eh, xam di sant bu baax di gërëm ñu fi jaar ñëpp ñi woote ak ñi amoon yéene bi eh, ak ñi nga xam ne bii jéem nañ sottiwul ak ñi nga xam ne wun waaye nu ngi teewlu tey ñaan ñëpp ñëpp ñëpp nu ngi ñaan yàlla yokk defal leen xewal ñu koy daan waxee rek ñëpp mucc ñëpp yokk di ñaanal kër gi di almadina fm ak ay kilifaam fa laa di wax na lépp lu si jub si émission bi nu ngi koy sante yàlla jalla jalaalahu waaye lu si safaanu wi nu ngi leen koy jéggalu di koy jéggalu yàlla di wax ne sunu yéen mooy dimanche bu nekk rek si kàttanu borom bi nu wettali kon te fi ak yéen si seen émission Wadduha yéenay Wadduha nag na ma ko waxee woon rek mooy ñëpp mucc ñëpp yokk te fa tabarakalaa nu ngi si ñaanal ñëpp comme ni nu yëgee ne nu ngi nuy ñaanal ba li nu sumb lépp yàlla mi borom xudrata ak iraada yàlla kàttanal nu ba mën a mat te fa tabarakalaa mooy daaray Wadduha ak yeneen ak yeneen i yoo xam ne si kàttanu yàlla yéene nañ koy def lépp di si jaamu yàlla di ñaan yàlla ñëpp ñëpp mucc ci gaalu xéwal loolu moo nekkoon seen émission bi numéro Wadduha di numéro Mara Cissé mooy 77 nga def 70 104 79 17. loolu di gërëmaat tey sant bu baax Iba bi nekk ci technique bi e wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu alamin Mamadou ya Rasulillah Mamadou sa suuf si moo mata doon sa ndox mi moo mata naan tàndar may madina nga ne Mamadou Rasulillah